réseaux sociaux yi daal moo ko soxal. waaw yow Thiaka Bile yow Thiaka waaw yow Thiaka man du ma wax ak yow du ma la tontu Malick Gakou xam na kanay Gaston Gaston xam na kanay Malick Gakou yéen ñëpp ay sama yëpp a ngi sëy mbaa ci leneen mais yow comme Thiaka nga rek prostitué loolu ñi mën a mel jigéen ñu baax ñi boo ci dégg kenn bi mais nag debal loo neex waxal defal la neex noonu nga noonu nga toll Malick Gakou moom xam na man xam na. jaajëf yow di la may yow dama la ya doon may dong nak. bëgg nga am sa ñaari daanu yu dëgër ke ci dëkk te mënoo dara da nga yoom ya, faju ji dina la bindal yu baax nak dina la bindal yu baax ciaga bu ris la ciaga bo xamanteni big la yore ya, jël ordonnance tek waaw yore kaseem jang xam fi mi tek tankam dina la bindal yu baax dégg na la jëlat ci kanam tuuti ma jema xol yow yan la lay mëna associer Buzz Senegal TV. Amo ben personnalité yow fi nga dan rang Mali gaku nan gaku fi gën nan muy meilleur profil nga taxaw ni di wax yow tay archive muy fi sama téléphone yow doo nitu dara ciaga bi ngay waxal de ciaga bi ak am classe ciaga bi da am classe mais yow dama nga ñew di jënd ma ne la dama lay may ma raxas ba mu seet ubil lu munoo ci ayam bi di lang noy nepp melna banana bu lax yow mënoo ci dara caga bii mënoo ci moom dara boo mënoon dara xam nga ni dama lay may keroog ba nga ñëwee boo mënoon dara dama lay may ñaari daanu mais dangaa ñëw ma rafet ba mu set bëgg laa may ah ndekete yow dangaa yoom booleeg sa xuuxaan googu ak sa xuur bi ci droite bi noonu sa xuur droite bi noonu bul boobu ci nekk noonu demal faji ji ko ndax loolu boo ko fajul mën na laa indee sax cancer dégg nga waaw ah, kay. Buzz Sénégal bi baax na dégg nga sama garab bi. wa baxna bu la neexee aussi nga jël compromis bi baxna parce que sa xeetu yow man la gëjë gis euh xamna né yow mom il faut nga bolé sax sachet bi ak compromis bi sama gradé nga mais duñ ko jaay sans ordonnance dina la bindal ordonnance bi léegi envoyé la ko bu ko défé so ñëwatee so waré jënd nono bu ma la waré may nono nga mën ko naan pour nga mën dara dégg nga da nga gëjë daanu yow. duur rek ngay def duur rek ngay def yow pourtant ci mali Gakou nga joggé kon bu dé Malick Gakou moom mooy président Malick Gakou day liggéeyal président lan motax yow nga ñëwoon ci grand parti ut xaliss donc yow katu xaliss nga kat nga fo yaakar rek yow maag yow dajé nañ kër Malick Gakou ba tay du ben du ñaar nga ñëw assister ma taxaw nii di ak yow du ben du ñaar say archive mi sama téléphone yow dur rek nga man Gaston yow li ngay dur lan la yow da nga wara nopi way yow gëmo dara yow xaliss nga gëm ak wéccet yow yo. xalaté rek noko amé rek baxna yow amoo benn dama niroog moom loolu moom mais day di Gaston Mbengue mu nekk mel ni dafa seq benn xale bu jigéen ñuy werante ci ay audio ba tax nak Gaston Mbengue moomulee bu leen fàtte benn yoon ne moom moo fi génnoon di wax naan kii di Barthélemy Diaz nag kenn waru koo tab mu nekk maire bu Dakar kenn waru koo faral tamit mu nekk candidat ndax Diaz moom kenn xamu ko te it bëriwul ci réew mi buñ leen doon wàññi sant yooyu. te it wul fi nga xam ne moom Sénégal mu daal dee nag def ak botti contre si wàllu xeet jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy Diaz moomule ba opposition bi ak ñeneen ba ci sax société civile bi jógoon di wax naan kii di Macky Sall daa war a daan wala sax justice bi ki nga xam ne moom Gaston meng moomule ndax li mu wax jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy Diaz rafetul benn yoon te it boo di ci wàllu xeet moom lay def def yamu ca nag ndax génnaat na eh, di wax ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko moomu ne dañu ko war a faat muy nekk kàddu yoo xam ne kenn rafetluwu ko lu nañ ko loolu eh, sax moom Gaston Mbengue moomu le bu fekkente ne sax dafa bokk ci camp présidentiel maanaam ci coalition Benno Bokk Yaakaar moom Gaston Mbengue moomu nag kàddu yu mu yëkki teg ko ci kaw Barthélémy Diaz ak ci kaw Ousmane Sonko rafetluwu ko benn yoon dolli na ci nag ne Ousmane Sonko dafa am en gu rëy jëmale ko nag ci ki nga xam ne moom mooy Macky Sall te yem bi nag xolam boobule da ko war a raxas ba mu set moom Ousmane Sonko ndax ne na xol bu bon la yor moom Ousmane Sonko jëmale ko ci i Sall loole lépp nak Gaston Mbengue daal di koy wax te it dara fekk ko ci tey nag ab audio daal di génn soxol ko mook benn xale bu jigéen ñuy wax wax ju tegginuwul dara ñu ñaaw loolu ba xale bu jigéen bi sax dem nankaan yow moom sa ngóoro moom dañ koy laam dara baaxu ci mu nekk kàddu yoo xam ne kenn rafetlu wu ko muy def nag di wax xale bu jigéen yi tamit li nga xam ne kenn du ko rafetlu boobu lépp ojo nag mu ngi circuler ci réseaux sociaux yi tey nag mel ni Gaston Mbengue moom la mu doon wax kii di Barthélémy Diaz doon ko wax it ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko tey daal dee nay këpp ci kawam ana ñàkk ña doon far ak ki nga xam ne moom mooy Gaston Mbengue mu daan wax lu ko neex opposition bi eh, tey nag li nga xam ne moom mooy bésam daal di nay ñëw ndax audio yooyu rafetlu wuñ ko benn yoon te mu ngi tàmbale di fes si réseaux sociaux yi tey nag ndax Gaston Mbengue dina génn daal di weddi ba mu set ndax li waral coow li sax moom mooy ki nga xam ne moom mooy Gaston Mbengue dañ ko invité woon ci benn plateau télé muy wax ne ki nga xam ne moom mooy Malick Gakou day liggéeyal kii di. président de la république Macky Sall moomule ba Malick Gakou génn weddi ba mu set ne dina yónnee sommation interpellative ki nga xam ne moom mooy Gaston Mbengue ginnaaw bu mu yëkkee yi xale bu jigéen bi nag mel ni dafa far rek ci camp Malick Gakou daal dee tàmbale sulli mbóot yi daal de tàmbale tamit di wax la mu sexoon na ak Gaston Mbengue moomule nankaan gëmoo dara xaalis nga gëm xaalis ngay jaamu te noo ko amee it baax na kaddu yi moom rafetlu wuñ ko benn yoon ci jaar sax dafay uslu moo tax nag wàllug politique gi fii ci Sénégal nañu koy waxee daal wala sax nañu koy defee rafetlu wuñu ko uh, benn yoon la Gaston Mbengue ndax dina génn uh, daal di weddi dit wala dina ko def ak lu mu ci mën ci demee li nga xam ne moom mooy audio boobule ma ngay tàmbalee di gën a uh, fees ci li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi te it Gaston Mbengue saa rek ku ñu ko tuddee rek daal di tudd wàllug politique ndax fa mu muy coalition Benno Bokk yaakaar xam ngeen temps yee nag ci États-Unis am na benn plainte boo xam ne defaloon nañ ko ndax daa am ay pro Sonko yoo xam ne ñoom Gaston Mbengue ak Farba Ngom dañoo recruter woon ay nervi ñu leen di pamti pamte ba gaañ leen ba tax na nag li nga xam ne moom mooy mandat d'arrêt international daal doon na ñeel ñaar ñooñu muy Gaston Mbengue ak